asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziyaare di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér soxna mama Khady. Mhm. waa ak nawet bi xaw naa am tuuti jafe-jafe wante sant sant ku tedd ki rek ndax moom da ngay tàmbali rek moom mooy àggale waaw sant Seydina Alioune bu wér sant Seydina Omar macha allah yox dëgg yàlla kawe na njort kawe na njort lool maanaam ci xéwal yi ak euh, bette gi waaj gi daa yàggut mu demee nii daanaka une semaine lay tollool bañ ko dalee waaj ak léegi waaw dimanche bee passé la ak dimanche bi kon une semaine la kon ñi ngi sant bu wér a wér a wér incha allah. allah ñun taw feexu sëñ bi rek lañ ci bëgg te incha nañ dañ ko ci am bu neexee yàlla. ah li sëñ Saali waxoon rek moo law ba ci ñun daane li sëñ baam ba defoon ca mag ña moom laay def ci ndaw ñi looloo looloo ñu laar rek xam ni àdduna moom ndaw a ko moom te ñun ñoo yor réew mi ndaw mooy màgg moo tax ñu tàmbalee ci ndaw ñi. ji yaay faale da xam nga ni moom sant rek sant ku tedd ke lépp xéwale na macha allah wax dëgg yàlla macha allah. message bi daal lan la mooy ñu jàpp rek tëw a xam ni tàmbali dina sew mais après sëñ bee yor lépp. te dëggal jubal leeral gi rek li ñu Seydina Alioune wax Seydina Omar wax nu ko ci loolu rek la ñuy tegu te loolu ku ci tegu incha allah ca kaw ci kanam rek incha allah jërëjëf bég nañ lool. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziar kulluhum koo xamante ni yaa ngi fi teew di jiite ci nuyoo geeg ziar gi suñu kilifa bi nga xamante ni mooy Cheikh Seydina Omar. di ko ñaanal jàmm saa su nekk di wax mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah. gi nag ñu ngi koy tàmbali ren gi di ñaan suñu borom mu saxal ñu ba lépp loo xamante ne yéene nañ ko rek suñu borom matale ko ñu àggale ko ci barki sëriñ bi. ndax yomboon na yombul nag ndax daanaka mbiru sëñ tubaab moo demee noonu te ay soxna moom daanaka bu ñu xasee ba yëkkati leen rek di dañ ciy songonoo daanaka lu bari dina ci xew. waaye suñu borom moo dogal ni ñoom urul ay nii nga xamante ni ñoo nekk fii dañoo am ak bëgg am ak gëm ak ak yëg kon ñuy ñaan suñu borom gën leen a dooleel gën leen a gunge di ñaan say saytaane dàq ñu di ñaan suñu borom dàq leen saytaane ndax jamono ji moo ni mel te di ñaan suñu borom gën leen a dooleel incha allah ndax ay jàmbaar lañu ay jigéen yu mën góor lañu incha allah. idée bi nag mu ngi mën naa ni mën naa jugee ci ñoom mën na jugee tamit ci Cheikh Seydina Omar ndax moom saa su nekk lépp lu ñuy def ci moom la ñuy jiital waaye ñoom bu ñuy heure lu ñu mën a def rek buñ ci waxtaanee ak ñoom da leen ciy dooleel gunge leen ci ba fépp ci bëgg rek ñu àgg fa. rab bi bëgg nañ koo fas yéene eggale mais eggale gi nag du doon comme nii ndax nii nii tàmbali la dañuy def ay yëngu suba xaw ma ginnaaw suba incha allah ñu ngi jëm Belki ti ziyaare ji Seex Seydina bu buñ demee comme ni ñu fa defee nii noonu lañ fay defee waat suñu ñibbisee incha allah rabbi ñu gën a saafanteeg jaamu yàlla yi rek incha allah ba suñu borom di ñu may jaamu. dépense bi nag métti na méttiwul waaye ay yaay faal lañu képp koo xamante ni dégg nga yaay faal rek xam nga ni daa ñemee ñaq. ku ci nekk def nga ci sa ñaq ñu def ci suñu doole fas yéene liggéey liggéey bi. waaw kàddu gu mujj gi rek mooy di leen wax ñu gën a góorgóorlu rek gën a jàpp tëw bàyyi ndax mbir mi moom boo ci nekkee di nga dégg lu nekk di leen gën a wax rek ñu gën a jàpp tëw bàyyi ndax yoon wi moom moo ni mel waaw incha allah rabbi day baax li sañ sëñ Mountakha wax rek dina yàgg waaye dina neex incha allah rabbi